pour cent Fass Mbao bi Mamor lan la tey dañoo gis beneen Mamor Mamor bi doon bëree 72 heures Mbaye Guèye man tey moom laa gis. waaw onze billah bisimilah ina wali yàlla ginnaaw bu ñu sant yàlla jul si yonante bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Xaadimu Rasuul di wax barke sëñ Abdou Karim Mbacke borom maakaari man axlaa maa ngi sant waa Fass Mbao yëpp di leen gërëm di leen nuyu gis naa jàppale bi gis naa taxawaay bi xamaa di jël nuyoo bi di ko teg si loxo papa Alpha Niang suñu papa imam ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu àdduna bi di nuyu diaspora bi kontaan naa si taxawaay bi yëpp yëpp gis naa lépp maa leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyu Pape Gueye bu baax a baax tey bu lii demee ba am Omar Ndour la ak Aliou Thiam ak Landing Sey Omar Petit ak waa Sofa sama papa Baye Fall ak Assane Fall tey bu lii demee ba am ñoom la ñoo ma taxaw jàppale ma maa leen sant bu baax ak njuuba aw ma seen fay Ousseynou Assane Ibrahima Mbaye école de lutte les Tigres bi yëpp maa leen di nuyu jël nuyoo bi jox ko loxo Ibos mu séddale ko gars yi kontaan naa si yéen Mamadou Mbaye di nuy Lamine Mbaye waa Ceew sa aw ma seen fay lépp ñoom la ñoo ma yokku fit ñoo ma jàppale comprendre nga di nuyu sama yaay bu baax ma fiyaat caw ca xiir bi aw ma seen fay ma fi yaa bigidu naar bi aw seen fay maa ngi sant bu baax di leen gërëm waa bigidu naar bi gis naa jàppale bi damay ñaan xam nga Pape Gueye mu jënd ma ay billet xam nga ak Omar Ndour Aliou Thiam comprendre nga njaga 221 pneumatique Vmas ñànku kase ñànku maa ngi lay woo si combat bu baax grand sal ndiir maa lay woo bu baax sama papa moo Modou Fall Ndiaye borom Brescia maa ngi lay woo di woo asumben bu baax a baax di woo papa Laman Papa Cissé borom marché Kermer di ñaanal madame Margo madame Margo yaayam yàlla na yàlla fëgg boppam madame Margo bëggoon naa ñëw sa kër mais damaa dégg say ay dafa feebar maa ngi nuyu jolof jolof yëpp yëpp yëpp. Mamor gannaaw bi nga nuyoo 100 pour cent Fass bi ñu mës sën gis tey dañ koo gis sa ginnaaw tey ban yëg-yëg si 100 pour cent Fass Mbaw. waa lii moom xam nga bett na ma ko waa tey gars yi nañ ma taxawoo xam nga jëlee na ma kaw kontaan naa bu baax si ñoom xam nga mais nii la mën a demee quoi ñun ay doomu Fass lañ deret Fass mooy daw suñu yaram lépp lu ñu am Fass lañ ko indi te fii lañ juddoo màggee fi yaroo fi ba pare nekk ay mbër di bëre nekk xale kon bu ñu jàppalee dañoo war a jàppale kontaan naa petit petit kontaan naa si yow bu baax caw sa xiir Ousseyn maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di wax maamoo dafa am ci combat boo jógee sa diggante ak Cheikh Super Diamono ñu gis ni nga abordé combat bi ba yegg ci am ca am ca defet mais nga ñëw xaw a téye sa bopp sa digganteeg ak Cité bu Saloum te bu ñuy fàttaliku Cité bu du duggoon na fi ci diggante ma rëm nga ñëw dafa mel ni da nga jëliwaat revanche te Cité bu Saloum boo Jules dalee na a boole da daan Boy Jules moom mu ñëw daan Boy Jules combat bi naka naka nga ko waajee waaw combat bi ni ma ko waajee mooy ma ànd ak samay mbokk bëre daan ak daanu moo ànd mais dañuy ñaan yàlla suñuy victoire ëpp suñuy defet Pape Gueye jël ma teg ma si ay loxo coach yu baax fayal ma salle musculation may teel a tëdd jabaram ab sa di ma defaral ay lekk yu baax may entraînement combat bi respecté naa ko trop Siteu bu Saloum champion la mais bu dëgalee boppam ma dóor ko mu daanu bu dëgalee boppam ma dóor ko nee na boo jëlal sa bopp ak combat moom boo xamante ni moo ko bëgg na combat bi moom moo ko jëlal boppam te bii mooy premier combat am boo xamante ni moom la duggee arène sa combat yaa ngi nii. combat mu doon bëre yëpp si Dab Saalum ak combat bi mu am nii bokkul man damaa soxla instant bi dama am li ma am lépp dama ko teg jeexal barke Serigne Bamba bu dëgalee boppam. dimanche sax yaagatul wax baaxul wax jiguñu yàlla nañu yàlla suturaal kattanal ñu si doole Serigne Touba Xaadim Rasul Mamadou dama dégg sa kàddu nga ne Siteu bu Saloum bu dëkkalee boppam da nga koy dóor mu wàcc est est-ce que xeex bi xeex bi dina dëgg dina sax man dañ maa fayal saal ay coach mbay kaa nekk suñu koñ amul leen lu ñuy tële si biir géew bi ku juum nag dañ lay daan mais ñoo ngi ñaan yàlla jour boobu yàlla kattanal ñu nga ne Siteu bu Saloum boo dëggalee sa bopp ma dóor la nga waaj. waxal ak moom moo ngi lay seetaan maman li ngay wax fii li ngay wax fii ci géew fii ci open press bi boo demee sa làmb jot danga koy def. déggoo lu ma la wax de combat bi du wax ju bari damay woo ñi may jàppale jëndal ma billet yi grand zaldir Pàkk Lambaay. di woo xama waa Fass Mbao góor ak jigéen mag ndaw rawatina waa Ceew sa waa mafia bi du naar bi ñoom aada kawas ñoom bada naar Pape Gueye yow laa bëgg ak ak Gana Kebe nga jàpp si non combat bi soxlaa ma si leneen lu dul jàppale non non dañoo bëgg parce que dañu doon gis ñi nga doon communiquer par rapport ak combat bi nanguloo cee wax nanguloo cee feeñ lan moo lool loolu combat dañ ma sas gisoo li topp sama ginnaaw dafa bari mafia bi gisoo ñi ñoom Boy Maar ñoom Petit Tigre ñoom Rëm ñëpp topp sama ginnaaw amul awma droit def erreur si lamb ji nii xam naa fu may yóbbu moo tax. ñu ci bàyyi naan na nag xamoo Siteu bu Saloum. bu baax. boo ko ndaanaan la dafa mën a bëre mais man dàqu maa bëre. yaa ngi ku daax xeex. bu dëgalee boobam lamb jeex. si une minute barke Serigne Bamba bu dëgalee boobam lamb ji gaaw a jeex. lamb ji jimaasa yàggatul ñëw na ba pare. si rabu Saalum nu dëgal boobam rek man ma dëgal sama bopp. mu ànd ay mbokam ma ànd ak samay mbokk Samba Ndour maa lay woo si combat bu baax a baax papal Lamane maa ngi lay woo si combat bi Grand Zal maa lay woo si combat bi. ñaan Mamor gis nañu temps yi jamono ji ñu nekk lamb violence bi dafa bari euh, lan ngay woote ci non à la violence. waaw Bolo ñoo lay bégee champion bu mag bi man may àndal ñëpp kenn man mosuma yàq man su ma daanee damay génn dem ñibbi bu ñu ma daanee ma akolaat sama adversaire dem ñibbi sport la barki Serigne Bamba mais gaw ma daanu si combat bii nii nga ne lamb ji gaw ma si daanu Daouda Sandwich amuñu fayam man. fan nga teg loolu fan nga damaa jóge si daam damaa jóge si lu metti ma tund ko lu metti ma tund ko mu metti trop ma wéet. xanaa dafa am luñ la déy. déggoo lu ma la maa ngi bëggee waa ma. ba léegi dénnoo benn sotti di wax lan la dafa am luñ la déy wala dafa am foo ko teg. doole ma dimbali ngir yàlla ma gërëm woote dem. non balaa ngaa gërëm balaa ngaa di nga woote ndax tey sa bis la mais dafa am foo ko teg wala. damaa nekk xale am si lu ma jugee. du du yoon may delluwaat si loolu. day yàq sama yoon dama dégg sa biir wax ne da nga daanu wéet ci ban côté nga wéetee. non mais fii nii làmb mooy loolu dafa métti làmb da ngay préparer jël sa xaas yëpp def ko si. boo daanoo yow kese yaa ko mën a dund mu metti la ni mu lay méttee du ko méttee nit ngay génn ñëpp di la xool naa la ay décourage man su ma daanoo du ma sigi sax di xool ni damay sëgg ba ba faqa salu si xeer yi bàyyi maa ngi woo àdduna ñoo jàppale ma sama combat bi waa Brescia Malick Seye maa lay woo si combat bi Assane Fall borom autrice. dernière question dernière question dañoo gis combat bi ngay bëri ay ndaanaan dañ ciy bëri mel ni Maama ñii ñëpp dañuy dem Esat Pape Gueye ak Gana Kebe dañuy jënd billet incha allah maa ngi woo Grand Zal di woo waa Seras Ahmed sama mag Jelaani Ousseynou ak Assane maa leen woo bu baax si combat bi. Bouba sama doomu nday madame Margot maa lay woo si combat bi ak Baye Doudou di woo. amaat macha allah fitness di woo Aysatu bu Paap barke Serigne Bamba di wax Daouda Sandwich kontaan naa moom ak Laurent Ndiago maa ngi woo Vémas bu baax a baax mu ñëw jàpp si combat bi la ma si kaar ak biye yi. ñànku kase maa lay woo si combat bi bu baax a baax borom autorise ak Père Baye Fall borom Sofa ñoo ngi lay ñaanal li nga bëgg si si bi yàlla na ko yàlla def. kontaan nañ gis nañ sponsor bi taxawaay bi gis nañ ko kontaan nañ si yow bu baax di nuy sama yaay bu baax a baax di ko ñaanal jàmm ak tawféex landing amuñu seen fay Ahmed Seras njaw aada waa Thiaw sa xiir yëpp Fass Mbao góor ak jigéen mag ndaw Ndiouba mention spéciale kontaan nañ si yow Mosey maa lay woo bu baax a baax mafia France bi maa leen di woo Ahmed Gueye Lamine mbaay maa ngi koy woo si combat bi mu ñëw jàpp si combat bi Lamine Mbaye waa Thiam Sakir maa ngi woo Kems borom France ak magam Escobar mu ñëw jàppale ma si combat bu baax a baax Maodo Ba combat bi gis naa jàppale bi kontaan naa si yow trop trop trop trop Khalifa Wade aw ma sa fay.